ko la ñu daal di yëgle ni dañu daal di boole seen doole eh, ci joŋante eh, njiitum réew atum ñaari ju ak ñaar fukk ak ñeent. Bruno Derneville eh, daal di jàppal tànk ki nga xamante ni nag jàpp na ni ñoo bokk yoon. ngir daal di suqali Sénégal rawatina nag ci jamono yi nga xamante ne Sénégal dafa amoon ay jafe-jafe soxal wàllum yoon itam wàllum politique. compte tenu na ay tuuma yoo xam ne ñu ngi koy teg ci suñu institution yi jamono ji boo xoolee ñi at weesu suñu réew mi dafa jaxasoo lool moo xam ci fànn bu mu mënti doon ñu dem sax ba nguur gi fi nekk bañ di jëfee ay décision de justice gis nañ ne itam processus électoral bi dafa la bëjoo bu baax kenn maste gis lu ni mel. particulièrement gannaaw bañ ko tabee mu nekk directeur de campagne njiitalu partie pour l'action citoyenne di ñaax sénégalais rek ba ñu daal di aar démocratie dëkk bi yoon wi moo di ñu dem sànni seeni xob. il est dafa bokk ci suñu responsabilité moo xam ci bor bu ñu manti fa ñu sauver li nga xam ne moo di suñu république ak suñu démocratie élection bi ñu jëm nag dinañ may occasion bi ci bu fekkee ni def nañ tànneef bu baax ci candidat yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tànneef boobu nag ñu ko def ak passion dafa war a doon loo xam ne dañ koy def te mu ànd ak xel mu sell daanaka benn fan képp moo daal di des campagne présidentielle bi daal di door candidat yi nag ku nekk di amal liggéeyam yu mujj doon porox lu ci Bruno D'Erneville ak ñi mu àndal ñuy ñaax rek ba lépp ñu daal di koy amal ci jàmm ak salaam.